marqué ci mel na ni moom dundam kon ba may dem ci moom fekkee taalibe mën nañ leen lim bariwuñu woon ma nekk ci daara ja ñuy béy di maajaal di béy di rijaal ba mu màgget si bi màgget see nag la ma oo dama dama gis na joor joor nga te joor joor dafay xaw muus ma bëgg nga ñëw jëg ma ci kër gi fii bu ma waxtaanee ba pare comme maxina su ma waxtaanee ba pare ma jox la nga waxtaan ndax maxina teel ma caabi kër gi lépp loo xamante ne ku ñëw ci kër gi te te taalibe indi ko nga jaarale ko ci yoon waxtaan ak moom bém bi nga indil ma ko mu jébbi bu fekkee mbokk mu indi ñu naxtaan ak moom waxtaan ak moom ba lu ñu am bu fekkee soxla ko ñu faj ñu faj ko bu fekkee ku xaw a la nga waxtaan ak moom dem dal ñu dalal ko dog ko yéew mu ñibbi nii laa nekkee woon nag ñëw ci kër gi sës si moom moom nag tawat bi bu ñëwee waxtaan wi bareetut gis naa daal li ci gën a mujj mooy ku ñëw ne ko ñaanal ma dafay naan ñaanal la sa bopp del def lu baax kuy def lu baax di wax lu baax rek lu baax rek lay am loolu moom loolu la mujjee dem presque daal di gis feebar bi xaw a ñu ne ma léegi daal yow rek yaa fi nekkati sama doom yëpp d'accord ci loolu dama man maa ko yoree ci léegi képp koo xam ne ñëw nag bu ma ko ne moom ma ne lu sëñ bi def ma ne ko tane na rek moom moon naa dellu waaye soxlaatul mu koy gis waaye mu demee ba feex nag bu ñëw te nga xamante ne mën nga koy gis mën naa laa ubbi rek nga gis ko waaye pour waxtaan moom il faut nga il ma ñëw waxtaanal ko moom lu mu la tontu ma wax mu jantalam lool la ko defee am na euh, boisson bi ñuy wax orange golden orange boobu kooku moom demoon na ba lool lay lekkati parce que dem na ba naa ma bu ma jigéen togale ci bu ma joxati ñam léegi bu lekki jotatee daal na nga tànk ci ci na kii ci limonade bi jox ma mën naa nekk daat waaye bu ma waxati ne jógal lekk boo ma waxatee jógal lekk du ma jóg. waaye ba mën a jógal naan nag dinaa jóg noonu laa koy jàppee mbor ñu dem ba yàgg ma léegi comme maa ngi yow la yàlla boole léegi da may xel defal li mu bëgg ma lay li nga bëgg li mu bëgg mooy jox ma ma naan te balaa maa yeeyaati na na muus yi lekk ndax xaj lekk na ñëpp lekk nga door maanaan jógal lekk nga doog may xele noonu la mujj da nga xamante ne jigéen ñi togalatuñ ko dem na weer yoo xamante ne jigéen togalatuñ ko li mu naan boobu moom laay jël boole ko ak boole ko ak ruy tuuti pour mu mën koy téye rek jox ko mu naan seddal ko même sedd parce que boobu fii frigo lañ ma joxoon ko defee nag ma ñu nekkee ko nekkee ko dem nañ Dakar faju fa lu mot ay fan yu bëri delsiaat feebar bi taxul mu tane ñu jël ko yóbbu ko Farafeñe am fa ñaar fukki fan ak juróom-ñett delsiaat te feebar bi taxul mu tane ñu dox ci luñ moon yépp da yàlla dogal nekkee ko nekkee ko daal la ko yàlla moome ci bési na si altine 10 heures ci guddi gi dina ko yàlla jël ma mu koy jël nag man maa ñëw pour jox ko reer ma gis na daal sensé naa nu mu meloon daal melatu ko te mënatu ma koy jox reer mënatu ma koy sax si lal bi ko doon yëkkati maa ko doon sàkk maa ko doon def lépp waaye dem naa ba mënu ma koy yëkkati keroog man jot na ko nag. soxna yu ñëw ak si Modou mu ndaw fekk na ko si Abou si Xaadim ñooñu moom fekk nañ ko dem koy Moussa Yacine ñooñu ñoom ñoo fekkee nelew bi ba ma koy yëkkatee yëkkati nag ma gis gannaaw gi ñàpp lool di laa ko yëkkati teg ko fi suma kaw boo ko tegee fi suma kaw ne xele bi ubbal ma ci gannaaw ba may ubbal ci gannaaw nag jala yàlla dogal ñu ne ma wàcce ko nelew la ma wàcce ko boobu doom yi kenn newu fi lu mooy Moodu mu ndaw ak Abdu ak Xaadim ak jabar yi ak soxna yi ko defee ñu yónnee pass yi suñu alaaji Keba suñu alaaji Keba aussi dem ci Moodu Fana Sokone maag sëñ bi ñoom noonu maag ñëw bi ñoo ne ci biir néeg bi dix heures et demi ba trois mu doog a ñu a ñëw bañ ñëwee ndekkite ay sëñ lañ doon ut parce que dañ doon préparer fu buñ ko sàngee rek denc ko rek dal koy sëng sëng barab bi parce que boo ko bàyyee noonu wala nit ñi fekkee denc bi day xat ci guddi gi lañ ko denc daf doon def nag képp ku nelaw ñu sikkaral ko waaye keroog dañ ne woon bu ko kenn sikkar ba bu nit ñi sikkaree nit dañu ñëw te bon day xat moo tax Tapha Touré yëkkati na sikkar ci buñ koy denc mbokk yi aaye ko Sëñ Mbay Sekk moom foofu sax waaye terewul mbokk yi aaye ko ci la suñ may géddoon nag dem basi xam nga keroog dëj ba yënduwu fa ndax dafa demoon basi ba Souley ñaan moo ko fa jëli Cheikh Souley moo ko fa jëli ne ko ni nga mel ak Cheikh Moussa bu fekkee Cheikh Moussa moo gaañu ku ñëw ci dëj bi fekk la fii day ñaaw lool gaañu ñu dem loolu moom moo jële may foofu fekk ñoom ñeneen ñi kenn nekku fa ñu daal ñoo fa nekkoon keroog bu Modou Fane ñëwee def ne woon ngom ngom daal bàyyi leen ko ak ak ak waayam bàyyi leen ko mu sàng waayam bàyyi ko mu léppam daraw si ñalaaji keebaa itam bam accès dafa daanu suma kaw dama jaajëf ngom jaajëf ngom jaajëf ngom ba ñetti yoon dañ koo sàkk ci magum taalibe yi waaw parce que parce que fekke ko ñi ko sàng ko sàng mooy Mamad Touré ak Demba Touré ak Moussa Yacine ak euh, Babou Mombe ak man mii ñun ñoo ñoo nekkoon ci wàllu bu sàmm bu sàmm bu Babou Babou Babou Mamad Penda Mamad Penda ak

kooku moom waxoon na nit ñi foofu lañ koy denc talaata talaata ba nag képp koo dëgg rek ñëw nga daaru keroog dafa mel ni daaru ci suuf la nit ñuy génnee bési talaata bañ koy jaar waaw ah, dañ ko dëj nag ba bés bi del si parce que dafa fekk magalu Touba jublu si te magalu Touba boobu des na fukki fan moo tax dañ ko dëj di ko sikkaral ba bés ba del si ñu doog a tasaaroo ñu magal Touba a sam sax moom ci mujjantalu dundam moom laata ko feebar ini di sonal loolu da nga xam ne waxatu yan mu wax la daan ñu dénkaane daal mujjantalu da koy waxal mun nañ ne lii moo wax mujjantalu waxal comme li nga da nga koy sant mu dolil la te yéen ñi yàlla may na leen aarif bu ñëwoon ñaan lu ko loolu la koy wax nee na yàlla dafa digle cante dafa digle ndolal ci biir cante te képp ku yàlla may bu ko ñaanati del ko sant mu lay dolil loolu moom loolu la santaane waaw mun gis itam mu mel ne xam ku amoon ay nag ak ay xar ak ay béy yooyu loolu defoon na képp koo xamante ne dénk na laalal yónni woon na sëñ Adam pour ñu jëli ko mu ñëw ñu jëli ko mu ñëw bu fekkee denk daal fekk nekk na ñaar daf lay may benn ba indi benn bi loolu moom def na ko fu mu alal fu nekk mu jël ko fa indi bañ teew ci kër gi bañ teewee ci kër gi ci la ma waxoon ne demal ci suma fas ya nga jël ci ñaari fas yu la gënal ma ne ko fas yooyu jox naa la ko adiya man ngërëm rek laa bëgg keroog dafa fanaan di ma ñaanal ba ba set moom gis naa ko ci ay ci mu jam waaw jërëjëf jërëjëf waaw jërëjëf leer na nañ waaw leer nañ nañ yàlla yàlla yàggal leen fi loolu dégg nga ñun saa su ne rek dañuy bëgg lu gën a leer Darou Assane Sarr waaye dafa nekk nii la ñuy teewoo waaye du ñàkk bu ne ba jamono yeneen leeral wala yeneen jamono yu gën a yaatu yi saxee rek ñu ngi yegg si saa su dee nii passage bi. ñi nga xam ne xam nañ ma te añaanuñu moom Souley ñaan ci la bokk moom xam na ma bu baax boo ko laajee mbir ci Cheikh Moussa day naan laaj ko suñu bopp parce que kooku laa fa daan fekk laa fa daan fekk. moom mu toujours ko xam lu leer loo xamante ne côté boobu la mën naa am daal am na ñi ma ci gën a xam ndax nit ku xam lépp. waaye man yàlla daf ma boole woon ak moom boole koo xamante ne boolewu ko sax ak doomam wala jabaram dama woot dama doon woot ak moom foo xam ne doom du fa woot ak moom keroog man am na benn bés dama ko ne dama bëgg nga may ma loo xam ne Seydina Aliou yonent bi mayoon na ko ko may ma loo xam ne kenn du ko am lu mooy man mu ne ma loolu kay jarte ñaan loolu am nga ko ndax di ngay def ak man gisuma ku koy def ak man du jabar du doom du taalibe fi ma toll woon ak moom foofu moom kenn mosu fay toll woon ak moom parce que foofu nit du fay toll ak sëriñ sëriñ bu tawatoon dañ doon dàq taalibe yi ñu dem bokk yi jël ko waaye moom bu mu tawatee dañ dàq bokk yi man ma jël waaw jaar ak moom fépp te suñ ko wax ndax xam nga place bu ma nekkoon jambar mo fay nek ak sutura jambar mo fay nek ak sutura ak fit waaye ñun ñi mu yar nag dañ ko nit ñuy wonewu waaw ñun ñun ñu yar moy moom parce que bu ko xam né naan ko rek il faut nga am foo war parce que cheikh bi doo ko gis ci benn bassan nga naan bassan ba ma fekk ko sëñ bi te ak rafet du am mukk do fekk sëñ ni sol mbugu da naan mbub li mako ko fekkee ak rafet du am mukk do fekk sëñ bi ci nek naan ne bi ma ko fekk te ak rafet bu am mukk saa soo ko gisee taalibe bu tekkul dara nga koy teg waaw ah, parce que dafa oyofaloon boppam léegoo léeg mu jël mbubu sax di ko kaalawoo boo waxee mu ne man suyeeruma sama bopp bokkuma ci sëriñ si suyeer seen bopp moom toujours dafa simple rek bu amoon ñaari bassin bu bees bi ak bu maget bi bu maget bi ci lay toog bu bees bi mu la la ko gan yi waaye du ci toog kon kooku daf di nittu yàlla xam nga nittu yàlla bokkul ak sëriñ sëriñ dafay añaan waaye nittu yàlla moom tabaar fakkal am na benn waa ñu ñëw ci këram dem ba yàgg mu siyaare ko gëtti nagam gëtti nag mu siyaare ko sëñ bi sëñ bi ne ko nayu moomoo mu ne ko maa ko liggéey mu ne sa doom yi ba nga liggéey ak sa yi àndoon te sa doom yi yaakaar nañ tey boo deewoon tey doom yi nañ lañ yaakaar boo leen maye boo leen joxe adee foo leen jëm moom moo gëtt gi demal nga delloo ko xam nga kooku sëriñ la sëriñ bokkul ak nitu yàlla bokkul ak sëriñ kooku dafa ñëwoon pour dimbale jaam yi rek waaye soxla wutoon moom dara ay problème am buñ la ko nettali yëpp nga xam ne kooku moom tabaar fakka la xam nañ yàlla may jàmm ah te may ñu gëj ak topp rek xam ne li ngeen topp loolu rek a jaral ku ko topp daal topp nga nitu yàlla topp nga Serigne Touba pire topp nga yonent bi pire ku ko topp topp nga yonent bi pire topp nga Serigne Touba pire loolu tax li topp rek moo jaral yal na yàlla may nag ñu topp nga ak jàmm barke alquran yal na yàlla defit ngeen fan gudd ak wér yal na yàlla aar leen kaaraange asamaan ak suuf li ngeen bëgg ci na sotti li ngeen bëgg àllaaxira yal na sotti Hallelujah.